mi yalon ka a pura bengoti uh, ah, a satun se a ka dorong uh, mol jum ah, al, al, a alba jumanyol expect kam yena ni lungo kon ni lungo konon tollu laru jono bele bina hmm. bari mbe men fango lafta ke puri bena wala banko bena okay. katu nim badi bu koy bina wala not bank be binale mm -hmm. andu chmc fana ya mutam fel wol fana na ma fango le fana be organizing kan puri yalo ni sinanya hmm. andu banjun fana be lorin jel me yalo te bina kan hmm. akam to ko national events le nyinti be west coast dammala event event le me alon ko national walatina mm -hmm. bi nyinin karo keta menti wala fom bengo be kala damen be kunno la je le fonte kunno la je ah. akamta ko mobele ya mutamfe ya jamme kuolen ya jamme kontantale ko ah. badi bun kol ya kalamta nyamen koy bina tentula ka jayi mm -hmm. oto badi bun kol fana mbatral la ko ko west coast ni national mem mo APR city mm -hmm. wolle tam ya jamme tibe silal ye badi bun kol fana mbato ntol be parerin okay Suane, yeah. ok uh, baraka bake aissatu hani kabi doron baɗigolu gañin fana soto jane aja mariatu uh, eh, suane ga fana bula ay nin baɗig jibel laleño kontom bisimilla bisimillahi <coughs> rahmani rahim kontanta baake kama ɓe jam mbay ji atte simbal be konton ala dow ku kendola mbe banku be konton bar persidang mi alan wole mm-hmm. ndiŋo mm-hmm. mm. to mboŋa ñiŋ palasoo diya la mbe a kontoŋ mbe baayis kontoŋ na meŋ keta aisat njaay ti mbeŋ na gofonoo miŋ ye a naŋ koyi ka a fo a ye ko laamini saane aniŋ baakari geyite mbe kontoŋ na mbeŋ paramaŋ kiif kontoŋ na miŋ ye a loŋ ko wo leŋ seefoolu bee la seefoo ti aniŋ a seefu toomaalu bee biriŋ badibunkuwo le fo konbonka seefoo konbo seefoolu miŋ ye bee kontoŋ na mbeŋ penko arke tura konton na wo me mu yalan ko mun na le di ti okay. anin kiyama to ma be okay. mbe ko mono sate tan saba anin saba mm. mbe la alkalo konton okay, baraka bake a ta ah, wala kam tan fe yo to nyaro wolom aja maria uh, suwaneti uh, ah, atolaje uh, ah, ngenyinin ka mba aja atol nying uh, nying programme alba pareri nyaadi la kam me pareri kama bake mm mm-hmm. min sati tan sabo min ka foyi ten mhm. alkalol le bije mi yalan ko mhm. iman haagi soto namanke hajame hajot iman haagi soto namanke bankola hajot mhm. andungalon ne koye mo mo ɓe wo kono e na banko kam min mo communauté fonte ciyamanol wo moblay salu yaye compinol wo fondinkel wo moɓe ɓe pargir ñimɓeŋole kam andun mbamutala ñofele fana dun gamuta ñofele a se foli a mutan fe a ko kɔntan mhm. ni wari tan fe bak ni minnu bɛ silo kan jam hmm. me be konton me jagel konton mhm. me ajabinta kani konton na mhm. mo blesa mbe do kweke hmm. ate kat do ko dia ta e ba ka fa ka fa do ko ke do wat wat mba esat gi fanga konton na mi alan ko atele mun tol nyaati hmm. bi atele be siri musole rigenot okay adan de jaata yankuba koli bebe konton na nyimbe ngol jusla kaman oh, yeah. binta sabal na doli be bebe konton yeah. itole do mu modu modu sabalti mm, bari hmm. ibada e nan ko moolu ye moodu kanole ka tambitol faŋol ni ala sonta ala maŋ ala ye mbee maa bendi a luŋo la kuu be kela ko mono dile jiyo te maŋ kila gee domoroo te moo maŋ kila gee mhm. ŋa mo ala ka fo ko foŋ be kunna le baŋ ala sonta mhm. sallahu ala be kunna le mhm. nŋa bee killa previous nama beja na na ngim bengoto dun ala sonta mo mm-hmm. be be kontan na le jame fanga be kontan na la balo no kay ku kendo le mm-hmm. bari ko mon koli mbiye mm. ba jole ngin nyala kata foni west coast mbele ba ko man ni alasan ta be umbe diala ba to nyalo a baraka ba ke aja mariatu hani ka bi mbadi ngola to la moy dorong alama alay so sima la nyimbe ngola dorong min kana nyim february kalola tili say ababa bengo ba kala mutaba kela combos a aba kela lamen leti tabiro ba kela jele mindo ba kela la jele drinks ba e fango fe mira dora aba tar la jele inshallah alama alay mo ma dira doro ngama wala gena wala kummayata mm. hani kabi doron kana Mamadou Diadjouya mi executive um, secretary alba la uh, well uh, uh, this was just we just appealing for a massive turnout okay massive turnout this is an APRC issue and we are not underrating it and we are not taking it lightly okay. all the youths we are calling all the youths all the griots every stakeholder mm -hmm to converge at the site on the 8th in the name of the leadership of our dear country, the APRC. Okay. His Excellency Chief Professor Dr. Alhaji Jami. Okay. Yeah. Yes, I will ask again, uh, Mr. Jaju, is this the first time you're organizing such an event? Candidly, no. Because we, we, we haven't having other, other programs, but this one is a little bit diverse. Okay. Yes, different from the other ones we have been, mm -hmm. that we have been doing. Okay. Yes. And uh, basically, you just want to uh, thank the president for nominating uh, Momodu for um, giving him that um, position, Momodu Sabali, because he's from Kumbunaf. Yeah, this is what I'm saying. We we are reciprocating. Yes. Okay. We reciprocate the good good good good action done by His Excellency. To the president. We want yeah. to show we want we want to show him that we reciprocate whatever he's he has done to the good son of ours, okay. Maurice Sabali. All right. Yes. Um, we don't have time. Um, there's, uh, we don't have much time on our side, um, so I will ask my last and final question. What is your message to the people out there? What are you telling our viewers? Actually, what are your last words? My uh, last words will be, well, I know when, when it is common note, in a common note is better described as the powerhouse of uh, uh elections. Okay. And uh, whatever concerns APRC, mm -hmm. the people are very, they are very uh, uh, responsive. Okay. They, they will respond, they will come out in, in their numbers. In their numbers. And uh, we, we, in this vein, we want to extend our warmest greetings mm -hmm. and we, we, want to recognize the, the, the supporting assistance of General Baru Ba, of Lamen, okay. and uh, through the Council of Elders of Lamen Village, mm -hmm. the head chief and the paramount chief, they have asked me to extend uh, sincere greetings, women's greetings to General Baruba mm -hmm. for all the assistance he have done. And all the stakeholders, the, the councillors of the, our various wards, the Brikama Area Council, Governor West Coast Region and his assistant Bakre Jaite mm. and all the stakeholders in, the, in, our, in our region. Okay. We want to thank them very much for all their contribution. Um, yeah. Thank you very much, uh, Mr. Jaju. Ba tey rek di by kiri di Adja Binta Kanji mooy women mobiliser bi Commonwealth mu um, wax ñu mu jëntali kàddoom bi parce que waxtu bi daanaka jàmm nañu. dëgg la jërëjëf Fatou su ma mujjantali wax mooy li ma maa ngi ñaan Yaya Jammeh ci boppam. na ñëw fekkee bii. kombonoot ba xamoon. Mhm. dina gis ne beneen kombonoot moo ñëwaat tegu ci kombonoot boobu. ndax seef bi parman chief. Mhm. mu ne moog alkaalim yi nañ leen ko bàyyee. jigéen ñi ne nañ leen ko bàyyee. kon bii dafa ute ak bu njëkk bi. suñ député bi mhm. mu ne nañ ko ko bàyyee moog yuusam yi. ñu ne leen lool du am. waaye bii su neexee yàlla. yaayaa dina xam ne kombonoot bugga nañ ko parce que moom moo wane ne kombonoot bugga nañ mhm. parce que kuy toog di wax ne moom balaa moo nelew kombonoot ñoo wax mhm. kon ñun tam lu ñoo xaar dinañ ko feyay boram bi bem xam ne kombonoot fi ñu nekkoon wàññeeku dafa yokku ñu ngi ñaan bés bi mhm. yal nañ ko fekkee jàmma jeexal ko ci jàmma di ñaanal Moodu tam place bi yanna na nekkalu ko jik te jik ñu réew mi yan na fi yàlla wàccee jàmma yan na fi yàlla wàccee xiiwal yan na fi yàlla wàccee bépp koom-koom yan na koy fi yàlla def du ma jeexal nag suma kàddu te nuyu ma waa Saudi Arabia yi ñi nga xam ne soppe yaayaa jàmme lañ mhm. maa ngi leen di wax ne suñ amee pileen nañ ñëw waaw baax incha allah jërëjëf <laughs> <laughs> um, mbokk kooku mooy uh, kooku mooy woon uh, Ajara Binta Kanji mooy women mobiliser bi Kombo North ba tey ma bàyyi uh, jaagal Sidibere moom it mu tàggatoo mbokkay ci kàllaama pool. yeah jarama aissatou so medan andina on onon yimɓe eh, musidal fulɓe joni ko ɗo men haddata e moɗon kono ha joni miɗen rewto e komin haalno teten mhm. ha joni ko bisimilla moɗon pour arde lamen nden ñande mhm. joni non miɗen salmina chef o to on chef lamen o ɗum woni combo note chief paramount chief mhm. kanko woni demba sagna ah, miɗen salmina eh, executive committee amen te salmina ne Eh, district eh, eh, chairperson woni mhm. rohi touré mhm. temi ɗo salmina min hoore an social and development committee chairman temi ɗo mhm. salmina social and development committee fof e nden ñalande ndeɓe noɓe ardata e tawe e nden on heew joni noon onon yimɓe combonot e onon yimɓe western division e onon yimɓe gambia e onon yimɓe badibo miɗen tori on onon fof no on arden ñande ardon e lappi lappi ha heewa so yimɓe